ngi kontaan di euh, salaam Fatma ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax euh, di nuyu pour pour pour bay neex waay <laughs> moo tax mu naqaree wax <laughs> waay. Euh, Fama ndeysaan Mass mooy benn ndaw boo xamante ni dafa juddoo ci banlieue bi ginnaaw Euh, màgge Pikine euh, yaroo Géejawaay aussi kon tey dama Mass mooy doomu banlieue saf sap ci banlieue bi. d'accord euh, Mass Fama Mass li ko dugal ci way nag man man mii sax daf maa jaaxal ndax Fama man duma géwél géer gu séddu ci laa man sëtu bu Sine Coumba la laa bokk ci waa Jaxaaw Sine sama maam ngi foofu tëdd. Mass dafa nekkoon benn xale boo xam ne da doon woyantu rek di woyantu sama yaay bu mu sukk jur moom mu njëkk ne demal way sama yaay bu mu sukk jur moom mu njëkk ne demal way man ko yaay bugguma way mun ma demal way mën ngaa way man ko non yaay bugguma way daf may sonal rek man lu ma dugg moom wul rek damay bàyyi voilà mais man daal ci gàttal faama dama nii dama xëy rek di way mhm. xëy xëy rek di micro Euh, fi ma njëkkee te micro mooy fa ma juddoo sama base ginnaaw raay ndax euh, ndeysaan benn sama benn copain bu naan njool moo doon feccal Pape ak Aziz Dabala ñoo doon ànd groupe euh, bu ñu daan dem programme dama leen di gunge man dama dem benn jour ma leen di gunge benn programme foofu sama ginnaaw koñ man daal dama taxaw ci biti di seetaan si ak dégg ñu may annoncé ñu naan ah, Mass sunu waykat bu bees bi Mass Happiness Mass Diouf moom la ñu àndal tey moo war a way may may xiin xiini nan waa mais lii nu mu demee ni man man maas wala beneen maas lañ wax gars yi xëcc ma dugal ma ci biir jox ma micro man leen ah mais bi ma gars joxe micro man a ah, garaawul naa def li ma xam rek ndeysaan ma jël benn woy ndongolo euh, ñeeño bala mañ sa bi ko way way ba si yàgg ba pare gars yi ma génn ma xam ne la ma sama yaay waxoon mu defe naa dikk na ma ni nag ma ni njool mu ne ma ni ko ah dugg naa fii di way ñu may ree waaye dinaa fi ñëwaat way ñuy bég. léegi bi nga yéegee nga way ba nga wàcc lan nga yëg. waaw li ma sama yaay waxoon rek. demal nga way mën ngaa way ma xam ne peut-être mag dina nekk ci suuf di seen loo xamante ne xale bi nekk ci kaw du ko seen. Euh, xaw ma sax lu ma luñ lu ma gars yi annoncé ba liñ ma dugal ci biir ma ni te man dama nekk benn nit koo xam dama am ambition. su ma dugg benn affaire bu avancé wul du ma dugg damay génnaat léegi nag ma ni comme que dem na noonu comme que demee na noonu euh, ma ni garaawul quoi euh, naa continuer di way rek voilà yëg-yëg boobu rek laa am tëgg neexul. ok donc def ban style de musique yow. Euh, man nag faama musique yëpp laay def musique yëpp variété laay def damay woy mbalax damay rap damay def euh, arène bi man lépp laay woy ndax parce que bi ma daan fooye way di ko créer ci musique indo la doon la ëppoon lu ma doon fooye parce que dama daan jël musique indo di ko dëpp musique indo bu ma neex dama ko daan jël di ko dëpp. ndax parce que tey biñ ne euh, am na biñ naan horo ki ne pano ki dunia mi hil paro ki mani man de ba may door metti woon gëm sa bopp rek woo gëmali gëmale gëm naa ko dina baax borom karaw gu ñuul ñàkkul dara fama gëm sa bopp rek wóor xam nga morceau boo xam nañ mm-hmm. am benn morceau buñ naan du yaa yaa rahe miradia loolu tamit benn morceau la may ko ne ko yaa yàlla yaana yàlla pexem noon de pexem noon nu ñuy def ba mucc ci yàlla yaa oh. <laughs> d'accord donc euh, euh, musique bi euh, lan moo tax tey ji dégguñu la ci ci yenn kii mm, nit yi dina yem foo ne masse nga nekk ci xale yi nga xamante ne ya xew ndax tey bu dee talent rek am nga ko visibilité bi moo des. waaw man dama naan benn côté aussi lu jot yomb jaam ak pexeem yàlla Euh, maa ngi aussi aw gisum aw ma fi waajur nag sama papa dafa génn àdduna sama yaay génn àdduna sama papa mosuma koo gis mais nàmpal gaañu xaw ma ko sama yaay rek laa xam moo tax ma naan ko yaay sama mag yaay sama rak dix ans lañ dix ans tëdd na ko feebar ma nekk ak moom di jóg di daaw ak moom ba yàlla jël ko euh, di ko ñaan fu mu tëdd yàlla ko gënal fi mu euh, nag lu jot yomb rek voilà ndax parce que àdduna souvent man sama lépp suñu borom laa ko teg dama naan heure lu ma def a ci évitation bi dama naan suñu borom moo tudd loolu voilà bu jotee rek dinaa génn mais benen côté bi aussi mooy euh, comme li ma la doon wax keroog euh, ménagère aussi aw ma ko dama ko xaw manqué ndax euh, déjà man li ma xam ci ménagère mooy waykat bi bala ko kenn gëm yow miy ànd ak moom yaa njëkk gëm voilà mais aussi bu fekkee benn ndaw nga boo xam da ngay doog a door <clears throat> gars yi dañ peut ni kii daf ñuy xaw a tardel wala ñu ñuy sonal mais man dama gëm sama bopp dañ ba def ma musique kese yem ci hmm. waaw nekk ci musique nekk ci liggéey damay def ay téléfilm aussi tamit damay def euh, damay jaay moteur pièce détachée hmm. poste carré kon aw ma temps bu may perdre su ma waree jeu ji damay jeu su ma waree répété damay répété su ma waree dem liggéey damay dem liggéey tey su ma tëggoon soirée su ma yeewoo suba teel huit heures damay solaat sama tën dem liggéey aw ma temps mooy perdre ba keroog yàlla di indi ndax parce que boo fekkee kenn xamuloo tojoo fenn war nga mën a liggéey même bu fekkee sax dañ laa xam sax aar dafa ànd ak liggéey kon liggéeyal quoi man souvent loolu laay wax am benn morceau mu la muy mooy liggéey ci loolu laa ko bindee loolu mais peut-être nag euh, bu heure bu yàlla jotee rek bu bu bu bu rek peut-être ñëpp na dégg maas. que euh, jàppoon tamit li ñu naan musique dafa fiir booy def musique da ngay toog musique kese ngay def mais yow yaa ngi ci musique bi yaa ngi ci business bi euh, yaa ngi toog ci sa liggéey ce que du tamit euh, temps bi musique bi nga ko war a jox boobu nga amul tam. waaw Fama musique bi dafa am lu mu moom aussi temps bi aussi nga am lu mu moom mooy li may wax sànq kenn xamugu la tojoo ko fenn maa ngi tëgg ay soirée muy Mbour muy Pikine mooy Sinja samedi passé laa doon tëgg Sinja yaa ngi dégg maa ngi tëgg a soirée mais c'est-à-dire man li ma mun li ma d'accordul man li ma nangul man maas mooy tey ma def benn single wala benn clip muy daw ci télé ma dem tëdd kër ga naan programme rek lay xaar non même bu programme sax nekkul sax nga wujje boo jiyee tey ci semaine bii boo jiyee ci samedi wala nga jiyee dimanche après lundi mardi vendredi yëpp nga tëndoor ko tëdd nooy def loolu doxul moo tax man musique heure buñ ma woowee man fuñ ma yeewee na ma musique man leen ay ci ñu dem aw ma boo ma bettoon may nelaw barke sëñ Bamba boo mu jógee na ma woyal ma waay bu yàlla def ci man ndax moom ma wuti tërëmu yàlla moo ko def ci man du ma doon du lu ma dara voilà yàlla moo ko def ci man quoi. fans yi kañ lañ mën a xaar pour euh, benn single boo xamante ne rek da ngeen koy jagleel. waaw incha waaw loolu moom yàggatul. parce que ñoo ngi ciy dox man ak sama orchestre parce que dama yor groupe. ñoom Xaadim Boy Thiès. Euh, ale groupe happiness ñun ñooy waa happiness bége rek kaf foore ñun ñëpp ay morom lañ bége kaf foore maas loolu rek la xam voilà euh, ñu ngi waaj nag di def beneen single ndax parce que defoon nañ ñaari single mais loolu xaw na yàgg xaw na raar euh, mais ñu ngi taxaw parce que man souvent damay créer sama yëfi bopp man bëgguma topp ci way kenn di way. kuy sa idole. aw ma idole aw gëwuma kenn toppandoo ma kenn sama yëfi bopp laay indi ci musique toppandoo ma ci kenn royu ma ci kenn aw ma ci idole man sama musique bu bopp laa indi samay terme bopp laa indi samay création bopp laa indi voilà royu ma wayu kenn loolu la euh, nan nga gisee musique bi jamono fi mu toll nii karang-karang lool bëri karang-karang mais man dama ni musique moo musique amul problème de nit ñi ñoo am problème nit ñi seen bopp ñoo am problème muy ñiy déglu ak ñiy way mon dama jàpp ne tey da ngay def musique defal li nga sentir bégale ko say après jarul benn détail jarul benn wax jarul dara dara dara mais bu fekkee tey ba da nga bëgg a def lii ba pare di lijjanti keneen tamit da ngay sonal sa bopp da nga sonal sa bopp te aussi mbalax bi euh, nañ koy jéem a di varier pour mu mën a dem à international mmh. voilà bu jàpp ne sabar sabar fii rek la yem Sénégal voilà il faut international musique internationale na ko jeune talent yi di ko def ñun jeune te yi dañ ci war a vee parce que mooy tax ëllëg xam nga tey dab benn jour ma toog di waxtaan ak sama benn gaan mu ne ma Mass yow euh, loo gis ci euh, kuy imité ma man ko léegi yow imagine toi tey boo demee benn festival benn dëkk yow amoo lenn lu dul imité nga dem benn festival benn dëkk benn dëkk dem fa fekk fe dem fa festival léegi nga war a def nga war a way léegi ka nga war a way wayam nga fekk ko fu mu toog léegi su boobaa nooy defaam <laughs> ah doo waye di te festival da soxlawuñ loolu ka war a way woo nañ ko léegi yow boo ñëwee war a way wayam après doo waye di mm. moo tax création dafa baax su ñun ñun xale yi actuellement dañoo am temps wu création dañoo am jotu création grand amuñu ko de parce que grand yi actuellement nii dañu leen lépp seen lépp occupé kon ñun ñoo xamante ni kenn xamaguñu tojuguñu feen mais war nañu mën a am xalaat musique création rek la xalaat rek rek Youssou Ndour benn jour maa ngi koy dégg télé mës ko wax te defe naa waa TFM la ko la ko waxee woon mu di nga def dix ans ci musique xale bu ndaw ñoo def ci lu kenn mës a def ndax parce que musique affaire yu jinne la maa ko dégg Youssou parce que jamono yooyu maa ngi dawalal Pape Diouf fooyu ma Pape Diouf mii way maa ko doon dawalal. maa nekkoon chauffeur am ñoo bokkoon benn koñ ginnaaw musuma aw kenn. Euh, Pape mag la ci man euh, sama grand frère la parce que boo xoolee première son bu njëkkee génne bi ñu ko génnee moom laa ko jox mu ma booy man xamoon naan tôt tard di nga way deuxième son bi ma way ko ci happiness bi clip bi këram lañ ko defee sama grand la mais aussi euh, des fois ndax dañuy xaw a gëj a gisee. parce que peut-être jot moo amatul temps moo amatul loolu la rek mais sama mag la moom. lan mooy sa ay projet. waaw samay projet mooy euh, nekk ci liggéey aussi aussi di ñaanal sama yaay bu baax a baax a baax ma taay di ko ñaanal parce que kenn la woon ci yaayam euh, mu sor woon ci man lool lool lool lool lool ba fi may waxee ba fi may waxee bi ma yaayam gaañoo léegi am na trois ans mais ba tey damay jàpp ne sama yaay demul parce que dafa xawoon na jege ci man quoi. voilà léegi samay projet aussi mooy liggéey bégal samay soxna. ñaari soxna ñaari ah, soxna laa moo maa ngi yor ñaareel xaru jëkkëram maam jaara buso ak euh, boole zo aw buur këram. macha allah kenn kaa ngi Pikine kenn kaa ngi Mbuur. voilà di leen bu baax a baax ne leen sama soxna yooyu maa leen bëgg piir te bëggantu mu leen dëgg neexul. <laughs> <laughs> loolu <laughs> affaire daal loolu la quoi teg projet yi xam nga nekk ci liggéey bi aussi di xaar producteur producteur moom nga xam naa ni gaa fi mu toll nii gars yi dañuy daw mais ne leen bagage yaa ngi fi nañ ñëw mmh, avec Mass Happiness tey producteur bu ñëwoon bëgg trois album ma defal muy international muy national barke sëñ Bamba ma defal kooku ndax li nekk sama bopp rek mooy loolu jànguma mënuma bind mais macha allah nekk fii xam naa ne bu génnee mooy loolu. faama kaay ma wax laa ni ngay doxale ci duniya danga judd ci dini lislaam béggal sa yaay booy ak sa baay booy ñoom ñoo la yilif yàlla buur bi kenn la te saa ko soobee moom mu wan la boppam anday ah, saane eh, sunu yaay baalu nañ leen ak day toppee fama yow suma baay nañu baal yéey fama fawiyey fawiyey alhamdulilahi rabbil alamina jaamul sa boroom mi faamata ragal bur bi yàlla man di jaamu naa ko yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga yërëm ñoo jéggal ñooy yow yàlla ñu ngi lay ñaan ay waay ndaanaan nga ni faama ndaanaan nga suñ ko waxeek suñ ko waxul maa ji ginduur moom ndaanaan la limu mu créé ndaanaan la société bi ñoo ko soxla yi Youssou maa jigéen Ndour borom TFM dundam am na njariñ ci réew mi ngi liggéey ngir réew mi naan ko maa ndaanaan la ni faman daanaan ngeen feccum liir su neexe ya jaate ca mbagg ja ey faman merci beaucoup <laughs>